رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب الحمد لله رب العالمين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون mbokk yi teewlu seen émission nasiha ci seen chaine de télévision TFM religion muy chaine bi jox diine kàddu ngir dollee dëgëral pas-pas yi seen mbokkum taalibe seen soppe Cheikh Mbacké Thiam moo dellu siwaat di wéyal ak yéen jataay yi mu baaxoo di amal ay bis bu nekk ci waxtu wi thème bi ñu toll woon mu doon muhammad sallallahu alayhi wa sallam annabiyu war rasul mooy muhammad le prophète et le messager ñu ngi yemoon ak yéen ci ñetti téeméeri ndaw ak fukki ndaw ak ñetti ndaw yi nga xam ni ñoom la suñu boroom tànnoon ci téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni yonent yi yebal leen ba mu leen yebalee diggante aadama alayhi salaam ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu boroom xam ngeen ni wàcce na téeméeri téere ak ñeenti téere li may faral di wax ni yonent yépp jotuñu ay téere maanaam yonent yépp ay ndaw waaye ndaw yépp jotuñu ay téere waaye ñu joti téere it léegi-léegi sunu boroom fab ab lim ciy téere jox ko benn yonent kese lu mel ni Seydina Adama alayhi salaam suñu borom wàcc na ci moom fukki téere ku mel ni Chiisa doomam suñu borom wàcc na ci moom juróom fukki téere ku mel ni yonent yàlla Idrissa alayhi salaam suñu borom wàcc na ci moom kese fanweeri téere waaye ku mel ni Ibrahima alayhi salaam suñu borom wàcc na ci moom dong fukki téere ginnaaw bi nag la la Zabour ñëw ci yonent yàlla Daawuda muy les psaumes de David ginnaaw bi. tawreet ñëw ci Moussa alayhi salaam ñu naan donc la Torah de Moussa injil ñëw ci Isa alayhi salaam muy donc l'évangile de Jésus furqaan ñëw ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy alquranul karim téeméeri téere yooyu ne ko sunu euh, Sëriñ Tuubaa di faram-fàccee mu ni adaduha xadun wa un unzilat minha ala aadama fii ma sabat nuunun ala chisabnihi summa ala idrisa laamun yaa alal xibbi wi la yaa alal xilli wi la man la ko faram fàccee ni suñu borom séddalee tiir yi ci yonent yi alayhimu salaam waaye nee woon leen yonent bu ci nekk itam ndaw lu yàlla yabal lu nekk sa mission mën nga ko résumer ci ci ñetti phrase yi inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin en somme dans son essence lii mooy message yu mboolem yonent bu yàlla mos a yónni mooy lan ñoom la yónni ci yow boo doon tënk sa bataaxal ci ñoom mooy inni lakum rasulun amin ndaw laa lu ñu yónni ci yéen ci lu wér fattaqullaha wa atiyun ragal nga féetale leen ko seen boroom waaye topp gën a jëm ci man mi suñu boroom jàngal nu ngeen koy toppe waaye wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya ala illa ala rabbil alamin mooy kon benn yonent it du laaj rémunération ndax lan ku ci nekk da ngaa wax sa mbooloo ni ko sama pay mu ngi ci loxo yu borom bi ndefi mi ngi ci loxo yu borom bi ndefi li ñu foofu mooy lan mooy kon ndekkee woote ci yoonu yàlla bu retribution wala rémunération taxe mu dakk kon ala kulli xaal mel ni ko daawa ba am na lu des nga xam ne kon yonent yi jiitu woon yépp diggante aadama ba ci isa alayhi salaam kenn ku ci nekk da nga fekk sa jàngoro yu société muy une communauté suñu borom yemal la ca ñooña ne la waxal maak ñii dong waaye wax leen lii dong ngir saafara jàngoro ji dong boo demee ci aad sunu borom yemal ci yonent yàlla Huud nga xam ne ñoom seen problème mooy problème d'impunité ak insécurité boo demee ci surtout Shuara suñu borom mi ko ci leeral sadaqallaahu al ku mel ni samuut xeet wow yàlla yónni ci ñoom yonent yàlla saalix naka noonu ku mel ni xawmu luut suñu borom yebal ci ñoom yonent yàlla luut alayhi salaam ak tatuna dukraana ni mu leen ko waxee woon nga xam ne ñoom problème homosexualité yi ñuy xeex tey yonent yàlla loolu la doon saafara ci xeetam ku ci mel ni yonent yàlla Shuaybu suñu borom yebal ko ci ku ñuy wax asxaabul ayka nga xam ne ñoom seen jàngoro yu société moo nekkoon furut ak corruption fraude ak corruption léegi nag jamono dem ba yonent yooyu yëpp nag wéy nañu te ku ci nekk la nga doon saafara wéy di des ci àddina kon ça pose problème mbokk yi yonent yi toftale nañu 123 999 mursaluna yi 312 yi wéy nañu kenn dong nga des muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mboolem ñi ko jiitu woon ku ci nekk jàngoro ja nga doon saafara ci sa waxeet dikk na daj àddina li may faral di wax ni bu fekkente ni danga nekk ci manding dib rëbb te mu bari ay ndegment te nga desee benn sox kese war nga koo wóolu waaye war ngaa mën a diir lool mbokk yi tax sunu borom subhanahu wa taala ba mu ko yebalee moom muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy le sceau des prophètes def ko ni yow waxal ma jaam ngi ni leen qul yaa ayyuhan naasu néew ko yaa mi Muhammad sallallahu alayhi ci yaa xaw mi mooy ô vous ma communauté déedéet newul yaa xaw mi newul yéen wax Màkka newul yéen askanu arab newul dani yaa ayyuhan naas suñu borom nii ko comme yaay le sceau des prophètes ni ngeen leen yaa ayyuhan naas ee yéen mboolem nit inni rasulullahi ilaykum jamian ndawal yàlla laa ci mboolem nag ku aadama jaboote allazi lahu mulku ko wal ard yàlla man yàlla mi nga xam ne nag moo sàkk mooy buur asamaan ak suuf kon waxuma yàllay tabax waxuma yàllay xërëm waaye yàlla mi nga xam ni rab bu rabbukum wa rabbu abaikumul awwaluuna ki bindoon seen maam yaag seen maamaat yi bind leen tey bind seen i sët waaye bi ko suñu borom yebalee itam daf ko jox un document tey da ngay gis ku mel ni premier ministre bu ñu ne tabb nañu sëñ Ibou Diouf ndaw euh, mu mu njiitu jëriñ ñi day toog ba yàgg mu def discours de politique générale mooy lan day décliner li mu nam ma def ngir réew mi danaan lii la nga xam ne kon day am ci lu mu sukkandiku waaye it mbokk yi réew moo gis muy dox itam dafa am une constitution bu koy doxal ci wàllu yoon nga xam ne kon moo naan lii la ñu bëgg ci réew mi lii lañu ci sib nii la ñu bëgg ab citoyen di ko doxe ngir mën a dëppoo ak bëgg-bëggi askanu réew mi document boobu nag ginnaaw kii moom mooy le président mooy le leader mooy le chef mooy le général d'armée mooy ko mat ki di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam war a defar mboolem lu yàlla bind nag sunu boroom nag jox ko benn document muy alquranul karim bi nga xam ni mboolem ku yàlla ma sa yónni lam la yebaloon lam la waxloo woon ma nga mu dëxañ ci biir téere boobu ndax lan damay faral di wax ne amul benn yonent bu mës a woote dikk ni ki ma jiitu woon nangam la wax man nangam lii laa wax wala kër kee dañu woon nangam ak nangam waaye man jëmewuma leen foofu lii la leen bàyyiloo woon jëfe leen ko lii la leen tere tere lii la leen tere tere woon jëfe leen ko lii la leen diggaloon bàyyi leen ko fa déedéet ñoom ñëpp c'est un même message dikk nag suñu borom def synthèse bi ci alquranul karim muy kon kéemaan di mujiza di xar baaxu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir lan ginnaaw def ko yebal ni ko nag kii moo war a nekk la solution à toutes les préoccupations de l'humanité nga xam ni ma koy faral di waxee amul amul ci kaw suuf jàngoro société yoo xam ne ku xam alxuraan di ko laaj mu ne lii alxuraan prévoir ko déedéet ci tënk foofu rek benn parenthèse daa mas am benn waaye bu ñëw ci benn ustaas ne ko damaa dégg ñu naan alxuraan suñu borom fàttiwu ci dara mu ne ko waaw suñu borom subhanahu wa taala moo ni maa farat naa fil kitaabi min shay'in nu n'avons rien nu dans ce livre fàttiwu ma ci dara mu ne ko ginnaaw fàttiwu ci dara te ustaas nga dinaa la laaj benn laaj nga ma bëgg nag nga laaj nga wax ma kon fu tontu li nekk ci alxuraan mu ne ko ëcc mu ne ko fukki kilo yu fëriñ boo ko bëggee xiiw def ko mburu ñaata litre ndox mooy doy ustaas ba jàpp ci loxo ba ànd ak moom ba ca boulangerie ba mu laaj ca boulanger bi xiiw mburu mi ni ko fukki kilo yu fëriñ boo ko bëggee xiw def ko mburu ñaata litre ndox mooy doy boulanger ba ne ko nangami litre yi doy oustaz ba ne gees ni waaja alquran nee na nangami litre mooy doy mu ne ko déedéet waxuma la waxi boulanger waxi alquran daal wax waa gi ni ko oustaz bi ni ko alquran moo ne ci biir kaamil boobu fas alu ahla dikri in kuntum laa taalamuuna bu amee lu ngeen bëgg xam te xamu leen ko laaj leen ko ñu ko xam mu ne ko kon ci laaya boobu ci laa sukkandiku laaj boulanger bi nga xam ne moom a gën a xam luy xiiw fariñ ma wax la pour wax leen kon mojisa gi maanaam kon mooy mat gi waaye kiimtan gi ci alquranul karim suñu borom wàcce ko ñu muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ko nag ñaari wax ne ko maa arsalnaaka illaa kaafatan waaye mel ni ku ni tekk ba yàgg kat yërmande muhammad peek na doomu aadama waaye yërmande muhammad weesu na war a xittali askanu doomu aadama kese mu dikkat ni ko maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamina wa maa arsalnaaka illaa kaafatan lin naasi waaye nit kese kese kese yamu ci ginnaaw yow Muhammad te ci dundam wane na ko xettali na kiwél gu ab rëbb jàpp wax na ak mbëtt mu wax ko soxlaam mu saafaraw digga dégg Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu di wax ci mawaahibu ci ci naan jisun ya xinnu lahu ya innu zibun ya innu bi rax nga xam ne kon yërmandeem weesu na la communauté humaine simplement waaye wamaa arsalnaaka illaa kaafatan waaye it wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lil ci lépp lu yàlla bind moo tax El Omar Ndaw radiallahu anhu ca Daaru Salaam ca Saalum borom lu lu ul maknuun ak al yawaxitul faraid ak nuuniya mu ni kon wa xaamidul xaqi xaytu kaana na yursiluhu ilal xalaa'iqi bil qur'aani wal xikami wa xaamidul xaqi xaytu kaana yursiluhu ilal xalaa'iqi ñëpp nag lu ma ko jox comme document bil qur'aani al qur'aanu karim la ko jox waaye wal xikami ak sunna si nga xam ne mooy faram-fàcce mooy interprétation bi al qur'aanu karim sadaqallaahu al aziim ma tax suñu borom ni nag al jox jibril alayhi salaam mu jotlil ma ko sama ndaw lii ma gën a lépp gënal ma ñëpp gënal ma fépp muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah xam ne ni alxuraan jii ci man yàlla borom bindeef yii ci laa jóge ci la jóge waaye alxuraan jii dama ko tekki loxo yu wóor muy loxo yu jibril alayhi salaam di nga dégg si xam ne naan naan kitaabun majidun min majidin mu majidin li abdin majidin kon lépp wér na waaye ala qalbika alxuraan ci xolub sallallahu alayhi wasallam la tàbbi mu war a tàbbal leer ci xoli bindeef yi ngir lan defar àddina li takku na mi ne munti na ngir lan ngir xam goo xam ne yow Muhammad dama laa boole ci ñuy xuppe ak a gàgganti ak a jàjje waaye ci sa làkku bopp laa waxeek yow ngir li nga war a wax bindeef yi mën a am benn équi mën a bañ a am benn équivoque wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala ruuxul amin ala qalbika li takuna min al mundirin bi lisaanin arabiyin mubin pourquoi suñu borom mbokk yi di préciser bi lisaanin arabiyin mubin mooy en langue arabe académique en langue arabe pure ngir lan ngir bokk na ci matuwaayi yonent bu yàlla mas a yónni bu day jox téere amul benn yonent boo xam ni ci misaal day dëkk Cameroun yàlla yebal ko ci waa Sénégal wala mu dëkk Angleterre yàlla yebal ko ci waa France déedéet day juddoo ci dëkk ba laqad jaakum rasulun min anfusikum ci communauté ba ci lay bokk magge fa xam réalité sociale yi maîtriser ko réalité politique ak économique lépp mu peeg ko bu dikkee nag bu ne yàllaa ma yónnee ala kulli xaal coow dana am ndax dañ ne ko xanaa dinañ ne ko xanaa di yow mii nga xam ne ñoo la juddloo yar la ba nga xëy toll nii naan yàlla la yónnee bu ñu jommal waaye ala xaal yonent ñi mu bëgg a saafara di dundanoo ak ñoom dans un même environnement xam seeni préoccupation man ci mën a indi solution ala kulli xaal man ci indi solution moo tax suñu borom dafay wax ci alxuraan mu ni amul benn yonent boo xam ne dinaa ko yónni te du ci langue du ci waxin du ci làmmiñu askanam ci laa ko yónni moo tax El Hadji Sëriñ Xaalis Sey radiyallahu anhu jàngkatu xasida bu mag la woon bari na daaj yooyu de ñaan daaju bàyyi Xaalis Sey naka la firee laaya bi daf ni suñu borom nee na wa maa arsalna min rasulin illaa bilisaani qawmihi suñu borom nee na du ma yónni portugais gànnaar du ma yónni naaru ngooy du ma yónni séeréer xaay effectivement ndax su boobaa problème de communication mooy am mooy obstacle mooy barrière linguistique ne ko sama sëriñ imam Mouhamed Pouy di waxi ndax bu dee obstacle la mën nga koo jéggi waaye bu dee barrière moom amu ci pexe te yonent boo xam ne dafay wax ñu ne ko nga lan amul kenn ku yàlla mësu yónni te amoo cette possibilité cette capacité cette compétence boo xam ne di nga mën a communiquer ak askan wi ngay ak fasaaxa joo xam ne ala kulli xaal murattilu takallumi doo wax kenn kenn naan nga ni kenn naan nga ni donc langage boobu nga xam ni Zabour tey boo gisee mu nekk en juif c'est parce que tout simplement yonent yàlla Daawuda dafa nekkoon ci ñoom injil bu ñu koy bind ci hébreu naka noonu alxuraan ji it bu yàlla yebaloon tey ci Sénégal diggante Fuuta koo xam ne ñoom la waxal ala kulli xaal pulaar lay wax ak ñoom waaye bu dee Casamance Joola lay wax waaye bu dee Siin ala kulli xaal séeréer lay wax ndax alxuraan moo ne wa maa arsalnaa min rasulin illaa bi lisaani qawmihi seen langue communauté laa leen di yebal ngir lan li yubayyina lahum ngir sama message mën a leer seeni bopp ngir sama message mën a leer ci bopp suñu borom di bañal boo déggee mu ne bi lisaanin arabiyin mubiin dikkaat naan quraanan arabiyin xayra zi iwajin dafay bañal sallallahu alayhi wa sallam la yonent yàlla Moussa alayhi salaam doon ragal Moussa alayhi salaam ba ko suñu borom yebalee ci Firawna ne ko demal wax ak ñoom def ni ko rab bi inni axaafu an yukazzibun yàlla damaa bañ damay ragal dem Égypte woote ñu weddi ma indi inni axaafu an yukazibun damaa ragal dem Égypte woote ñu weddi ma suñu borom ni ko Moussa lu tax ngay ragal ginnaaw bu ma la yebalee nga dem di woote ñu di la weddi Moussa daf ko tegal paramètre linguistique boobu daf ni ko wayaat waya dayëqu ko di saa nii effectivement parce que dialecte ba mu mën a waxee ak ñoom am na sax ñu ni Moussa alayhi salaam bi mu nekkee liir laa muy wada na daf koo lakkoon am na ñu wax loolu ba tax mu dotom waaye am na ñu ne Moussa diir bi mu def Madiana ci bu te booba amul atteindregul benn maturité bi mu delsee Égypte dialecte bi ñuy wax moom dégg ko googu dégg su boobaa alaa kulli xaal bu leen bëggee ne yàllaa ma yebal bu ngi nekk lu sa borom wax du soxla interprète loolu moo tax yonent yàlla Haaruna alayhi salaam suñu borom def ko ab yonent wa yadiqu sadri wala yantaliqu lisaani fa arsil ila Haarun gis nga kon protéger obstacle barrière linguistique bi Moussa ni ko ginnaaw man ak waa Égypte problème communication man na cee am damaa bëgg nga boole maag sama rakk ji nga xam ne moom Haaruna moom miin na nu waa Égypte ba nga xam ne su ma demee di wax ak ñoom Haaruna man maa jàppale tax suñu borom ni ko xat sa nashuddu adudaka bi axika li nga bëgg ci sa rakk ji dañ la ko defal loolu moo tax yonent yàlla Haaruna alayhi salaam suñu borom def ko ab yonent lan li may wax ne kon diggante Haaruna ak Moussa alayhi salaam mooy deux messagers pour un même message ñaari yonent waaye pour une même communauté pour waxe kon importance bi communication am ci wàllu woote ci diine tax suñu borom defal ko rakkam yonent ngir lan ngir mu mën a transmettre communauté bi bëgg-bëgg yàlla suñu boroom waaye ñu mën a ràññee mën a xam itam lam fa bàyyilu ñu mën ñu ko fa ñukk mbokk yi yi teewlu nasiha ci TFM religion ak seen mbokkum taalibe Cheikh Mbacke Thiam nee naa leen sànq suñu boroom du yónni ab yonent mu doon gan ca fa muy wootee waaye day bokk ca ñoom dégg waxin wa ba tax kon mu fab Haaruna alayhi salaam def ko yonent <coughs> boole ko risaala gi ak Muusa alayhi salaam ba mu jógee Madyana di dem Misra ngir wax ak na ak ñoñam danga nga dégg suñu borom ni ko fa atiyaa Firawna fa quulaa inna rasulu rabbil alamin àndal ak Haaruna yéen ñaar ngeen dem ci na ngeen ni ko ñun ñaar lenn ndaw la yàlla lañu donc deux prophètes deux messagers pour transmettre un même message kon pour wax solo si nga xam ne kon wàllu langue wàllu communication wàllu enseignement waaye ngir compréhension mën a am kon ci wàllu diine kii nag moom ñëw di sallallahu alayhi wasallam Sëriñ Tuubaa ne ci Jazbul Quluub moom moom arsalahu ila kullil wara murattila zikran alayhi unzila hudan liti taallumi hudan liti taallumi donc arab la Qurayshi la Bani Haashim la waaye war naa wax ak wolof yi war a wax ak séeréer yi war a wax ak war a wax ak mànjaag kon mu mel ni liñ koy faral di wax il a du pain sur la planche ala kulli xaal waaye suñu borom nag tàggatal ko boppam ba ku ko woon ginnaaw nanguloo ko bu waxee boo wéeteeg sa bopp di nga ne tekk ni dëgg dëgg dëgg dëgg nag maa gën a nag contre Muhammad waaye lii moom dëgg la tàmbalee ko ci jinne ya jinne ya ndax jinne dafa nangoo yàgg àddi dafa nangoo gudd fan jinne ya fekk ñoom yonent yu bari défilé nañ ci seen kanam ba Muhammad ñëwee ñu dégg mu jàng alquraanu karim ji di mujizaam di kéemaanam dañoo réunion ñoom jinne yi dagale seeni kilifa ne qul uxiya ilayya annahu stamaa nafaru min al jinni fa qaalu inna samiana quranan ajaba ba ñu ko déggee ñu ne ah gaa yi nañu waxante dëgg nag lu nekk di dégg nañ ko waaye lii ñu dégg tey Muhammad di ko jàng lii mu kéemaan la kéemaan la goo xam ne yahdi ila rushdi fa amanna bihi moom day day gindi bindee fi yépp jëm ci njub moo tax ñu nangu wala nushrika bi rabbina ahada ñun ñu ko dégg te xam li Muhammad di wax di dootuñu bokkaale suñu borom ak dara ci la ñu sax gimmi koo xam ne ko ndeke Iblis da leen doon ndax wa annahu kaana yaqulu safihuna ala llahi shatata sadaqa llahu alazim waaye boo dikkee di wax ak nit bëgg a jàllale ci ñoom wooteb yàlla bi bëgg leen a yar te yaruwoo bëgg leen a jàngal te xamoo bëgg leen a yee te yaa ngi wéy di nelaw bëgg leen a def ci ñoom ak yiw te rëmbax te ëppal du sotti de moo tax muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu mu mas a woowaa màkk ci dañ ko fekk moo tax suñu borom da ko tàggatal boppam ba jukko mat sëkk mu ne ko waa innaka la ala xuluqin azim dëgg-dëgg yaa rafet jukko ndax bi mu nee cëpp war a woote mu nii nag innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaqi moo tax bu ñu nee Muhammad sallallahu alayhi wasallam lu ko indi ci kaw suuf moom moo waxal boppam ni li ma tax wàcc ci kaw suuf lenn la mooy li ma ngir ma jàngale ngir ma mottali ngir ma wane makaarimal axlaaq jukko yu rafet moo tax damay wax ni jukko ju rafet boo waxee ngi ne mooy tax li nit li tax nit ki mën a nekk ak nit ñi déedéet léeg nga gis borom jukko ju rafet te du mën a nekk ak kenn loolu nag xëy na leneen la mbaa borom jukko ju rafet mën a nekk ak ñii te defut ak ñeneen waaye jikko ju rafet mooy jikko ji tax nit ki mën a nekk ak boroomam subhanahu wa taala moo tax mu yaral ko boppam tàggatal ko boppam def ko échantillon ni nit ñi nag modèle la ngi nii tax sallallahu alayhi wa sallam daal ni nag man mii yàlla mujj yónni ci yéen addabani bi fa ahsana ta'dibi sunu boroom moom mi ma bindoon moom ma yaral boppam waaye moom moo rafetal it sama yar nag ba pare nag yebal ko ci mbindee fi ne ni ko nag léegi léegi nag demal yare maa la yar man yàlla ba nga yaru ba waa màkk lu ko waaye masa contre contre contre teewul kët lu ci waaye di dénkaane ne ana Muhammad mu la maa ngi ne mu ngeen ko am téel ma moom lañu gën a wóolu ci seen alal moom lañu gën a wóolu ci seen i mu nañ gën a ki ci seen seen dénkaan ak seen lépp nag ala kulli xaal ndax lan lu jiitu muhammad rasulullah fekkoon naka mu doon muhammadul amin muhammad mu ñu wóolu mu ñu wóolu mi sallallahu alayhi wa sallam tax elhaajo amar ndaw ibnu aliyun di ko wax ba tey nan ko walaysa madxuka tagg woowu ko suñu borom tagg wa innaka la ala xuluqin azim elhaajo amar ndaw ni walaysa madxuka ityaanan bidi zulamin yaa taahira ruuxi wal jusmaani wa chiyami kon Muhammad nekk moo ñëw ngir sellal ruu yi suñu borom yar ko waaye wëlbatiku sopp ko waaye wëlbatiku nag warmaal ko ba boo demee ci alquranul karim suñu borom ku masawoo a kenn daf laa sallalu ku mas a kenn daf laa sallalu yaa Muusa yaa Daawud ku mas a kenn da laa sallalu waaye li tubaab di wax vouvoiement wala voussoiement muy le pluriel de respect léeg-léeg nga ne nit vous fekk kenn doo ngay waxal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku yàlla ma a waxal ci alxuraan te kenn dana ni toi dana tutoyer ba mu des mel ni moom ba mu koy woo ni ko yaa ayyuhan nabiyu jaarul ci tur wi dikkaat ne ko yaa ayyuhan rasul ngir lan wekk gum ko wekk waaye fonk gum ko fonk waaye warmaal gu ñu ko warmaal sallallahu alayhi wa sallam tax ci Ahmad Bamba radiyallahu anhu muqaddimatul ab daax mu ni dëgg-dëgg daal maqaamay muhammad sallallahu alayhi boo ko bëggee xam ginnaaw maqaama la yoo xam ne mu ni kumpa mu ni waaye boo bëggee am loo ci xam daal jàngal saara wu ñuy wax suuratu suratul najmi ci alquran maqaamaatu xayril xalqi an xayri rabbihi muxayabatun fal taqra an surata najmi mu ne maqaamay sallallahu alayhi wa sallam kawe gi mu kawe ku moom mu ni kumpa boo ci bëggee xam dara jàngal suratu nañ suratu nañ bi nga xam ni boo ko jàngee diggante laaya ba ca njëkk ba ca fukkeelu laaya ak juróom-ñett maqaama ak kawtéef ak ngëneel ak tolluwaay yëpp sallallahu alayhi wa sallam dong la gis nu borom subhanahu wa taala dikk di leeral mi defi muy li ñu leen fas yéene ne kon faram fàcceel kon ci la su borom dëxañ ci suratu nañ mi wan nañ mi izaa hawaa ba ci laqad raa min ayati rabbihil kubra nga war a ne ala kulli huwa akmalul wara xalqan wa xulqan zahara wala mislu qattu lam yura wala yura fi chiyami mooy kon ala kulli xaal li El Hadji Ibrahima Niass cheikh al islam ca Kawlax waxoon rek mu ne huwal kullu minhul kullu xaqan walam akun ujassimu maanan id qasattu sanaahu foofu la ñu fas yéene incha allah dooree ko ak yéen teg fa sunu baaram fas yéene fas ko yéene wéyal ak yéen ci jotaay bii. ñu jëm ak yéen ci thème bii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyullahi wa rasulihi mu mel ni kon haza balaaxun linnaasi wala yundaru bihi wala yaalamu annama huwa ilahun waxid wala yadzakkara ulul albaab wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya rasul allah ya sidna çok nazad vallahi